السلام عليكم ما شاء الله آه، من لا شيخ باك اساخو من ماي ديف فيديو يويو آه، يومي ترانسفير نني ما سا ميساج آه، دغلونا ليغا تي واخ اك لاج بيغا خا نمو غا تي لاج تي لان موتاخ با مانام خينا حديث يويو ولا كم ني مام لي نيت ني دي واخ واخو يننت بي لان موتاخ با مان دوما كوي واخ نده دنج كو ورتا جانغ ولا دنج تي ورتا ديلو خمنا داف ميني لول مو ورا نيك لول موي لاج بي waaw loolu nag li ma ciy wax euh, yaakaar naa def naa ci sax vidéo bu yàggul dara ndax nit ñi am na ñu ñëwoon di laaj comme laaj yi loolu laa ni wax damay ni wax na leen maanaam ñun dafa am lu ñu jàngaloon ne lii mooy islaam loo xam ne dañ ñoo indil alquran indil ñu yeneen i wax ne ñu wax yooyu yonent bi moom moo ko wax ginnaaw gi may leen su ngeen demee ci alquran di ko seetantal mooy di def li nga xam ne suñ borom moom la leen digal ci téere bi da ngeen gis ne li yàlla jàngale ak li ñu jàngaloon du benn te su boobaa di ngeen dem ba xam ne fii liñ fi indi woon njàngaleem ab kuréel la bu tudd ahlu sunna wal jamaa mu nekk kuréel boo xam ne mu ngi juddu ci ginnaaw yonent bi nekk kuréel goo xam ne dafa nekkoon di wujje ak beneen kuréel bi ñuy wax ahlu chia mooy comme li ñuy wax sunisme ak chiisme comme soo demee côté Iran ñoom ci chiisme la ñu nekk soo demee lu mel ne Arabie Saoudite ñoom ñoo nekkoon ci ñoom ñoo nekk ci sunnisme sunnisme boobu nag moom la ñu yaataloon ci àdduna bi bu yàgg ndax dafa nekkoon ab kuréel boo xam ne ay buur ñoo ko porté woon ñu tasaare ko nag ci àdduna bi daanaka ci gox yu bari te fasantikoo ci continent yi te foo ci dem fi ñu ko fa yóbbu rek dañ koy présenté comme ne loolu mooy islaam mu nekk nag loo xam ne maanaam bëri na luñ ci jàngale loo xam ne dafa waroo ak li yàlla jàngale ñu bari ay àtte yoo xam ne dañ ko cee dugal yoo xam ne dinañ ci rey ay nit ci misaal mën naa ci jox ay misaal dangay dégg ñuy wax ne nit ki su toogee ñetti fan julliwul dañ koy rey wala nga dégg ñu ne nit ki maanaam su su murtadee dañ koy rey wala nga dégg ñu ne nit ki su amee soxna njaalo dañ koy rey ak yu baree baree bare yoo xam ne yaa ngi koy dégg yoo xam ne soo demee ci alquran yàlla dafa jàngale lu wuute ak loolu te ñoom dañuy wax ne loolu yonent bi moo ko jàngale te ma ne leen su ngeen demee ci alquran da ngeen fekk yàlla soo demee ci suratul kahfi muy surat 18 aaya 26 ci mujjug aaya bi da fekk yàlla di wax ne wala yushriku fii hukmihi ahada yàlla di wax na moom du bokkaale kenn ci atteem ma ne leen sax lu gën a doy waar it ba tey ñëw na ci alquran su ngeen demee ci suratu maida ci aaya 44 45 ak 47 yàlla di wax lu melni wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaayika humul kaafiruun ci benn bi beneen bi mu fa ulaayika humul faasixuun beneen bi mu fa ulaayika humul zaalimuun yàlla mu ku àttee ci lu li nga xam ne la yàlla ji wàcce mu ñi nga xam ne ñoom def loola mu ne ñooñu ay yéefar lañ ay faasix lañ muy ay saay-saay wala pervers lañ wala mu te beneen bi mu ne ñooñu ay tooñkat lañ léegi nag may leen yàlla li mu wàccee su ngeen ca demee am na bëri waane luñ leen jàngal du ngeen ko fekk te lañ leen jàngal dañuy ñëw ne leen yonent bi moom moo ko wax te ma ne leen yonent bi lim doon liggéey mooy jottali kàddug yàlla te kàddug yàlla googu mu ngi fi moom nekkatu fi kon képp koo xam ne bëgg ngaa xam lu mu jëf ak lu mu jëful ak képp koo xam ne bëgg ngaa xam lu mu wax ak lu mu waxul da ngay dellu ca lañ ko doon jottaliloo muy waxu yàlla te waxu yàlla yooyu moom la yàlla wax ne mooy waxu yonent bi ndax yonent bi ndaw la woon la doon ab mission wa mooy jottali kàddu gi yàlla kon kàddu yooyu mu doon jottali di kàddu gi yàlla loolu mooy waxam te loolu it la yàlla saxalal boppam yàlla li mu saxal soo demee ci suurat xàqa yow yaa koy gisal sa bopp mu wax ne innahu la xawlu rasulin karim di wax ne lii de ca dëgg-dëgg waxu yonent bu tedd la loolu yàlla wax na ko ñaari yoon soo ci suuratu takwir wax na ci jibril ndax moom mi nga xam ne moo ko jottali yonent bi soo demee tamit ci suuratu xàqa yàlla wax na ci yonent bi moom mi nga xam ne moom ko jottali ñun nga xam ne loolu macha allah noonu la demee léegi nag ginnaaw gi nag bi fi yonent bi bàyyi la ay nit ñëw ay at mun naa wax ne sax lu mat ñaar téeméeri at par exemple suma paree dinaa la indi exemple ki nga xam ne moom la ñuy wax Buxaari lu mat ñaar téeméeri at ay nit ñëw dem ñu ne ay ñu ne ay nit ñëw dem di laajte ñu leen di nettali ñuy bind loolu ñoo ñu bind nag bàyyi ko fi te loolu danaa ci ñëw danaa ñëw indi misaal lu mel ni Buxaari léegi nag loolu nga xam ne ñooñu moom lañ dem di laajte ñu leen koy nettali ñu koy bind ñu ne loolu waxu yeneentu bi la wax yooyu nag ku xam histoire bi xam ne bari na ci loo xam ne buur yi suñ bëggaan éliminer yenn adversaire politique wala ñu am loo xam ne bëggoon nañ ko légitimer seen bopp ay nit ñu nekkoon ci seen pale yi ñu leen ñu leen daan tuddee ay boromi xam-xam ñoom ñoo daan tëral ay wax suñ indee wax yooyu utal ko nag lu mel ni ab sanat lu mel ni chaîne de transmission su ko defee ñuy wax ne lii nii yonent bi moo ko waxoon alors que ñoom lu ñu sosal seen bopp la ndax yonent bi lu mu wax ak lu mu waxul ku ko bëgg a xam da ngay dem ca la nga xam ne moom lañ ko joxoon bi risalaam waaye ab rasul ni ab messager munuñ laa wax na la moo wax nangam wala moo jëfoon nangam te soo demee ci risaala bañ ko joxoon doo fa fekk loolu loolu nag mu nekk lu leer léegi nag yàlla loolu mu wax ne alquran mooy waxu yonent bi yàlla moom ci boppam ginnaaw gi nga xam ne maanaam ginnaaw bi yonent bi bàyyi fii ñu dem ay siècle après ay nit ñëw indi ay wax di wax na loolu waxu yonent bi la tuddee ko ay xadiis may leen nag problème bi ba tey damay wax ne gaa yi suñ borom ci ni mu xereñee da leen a lim leen nattoo moy yàlla so deme ci alquran ay waxu bopom mom la tuddé hadith so deme ci sourate 23 aya 30 so deme sourate 39 aya 23 mais sourate zumar aya 23 yàlla dafa wax ne allahu نزل احسن الحديث hadith yàlla mu ne moom moo wàccee gën jaa rafeti hadith loolu soo demee tamit ci suuratu nisaa yi muy suurat 4 aaya 87 ci mujjug aaya bi moom mu wax ne wa man asdaxu min allahi xadiisan ana ku gën a dëggu yàlla ci xadiis ma ne leen nag xadiis nag gis na nu ko yàlla di waxee may leen léegi nag nit ñu bari lu ñu xamul ndax dama ni wax ne dañuy ñëw rek indi leen ay wax ne leen lii ay xadiis la mooy waxu yenenti bi te ma ne leen loolu njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la ndax li ñuy wax xadiis yàlla ci boppam ay waxam da koo tuddee xadiis wa ahlu sunna ñom ñu am seen hadith wa ahlu shia ñom am seen hadith may leen nak yàlla mom ay waxu bopam la tuddé hadith ne mom mo wacce gën jaa rafeti hadith ba pare laaj ana kan moko gëna gën a dëgg moom ci hadith ba pare it wax ne manam so démé ci suratu jaasiya mi surat 45 aya 6 ne tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi mu teg ci ab laaj ne fa bi ay xadisin baadallahi wa ayatihi yuminun mu teg ci ab laaj ne ana ban xadis ngeen di gëm ginnaaw yàlla ak i kéemaanam faral di wax nit leen léegi ñetti xadis a ngi nii taxaw mais xadisu yàlla yi ak xadisu sunnit yi yi nga xam ne moom la Sénégal fii yi nga xam ne moom la ñuy wax fii Sénégal ak xadisu chiite yi yàlla nag da leen laaj ala yéen ban xadiis ngeen di gëm ginnaaw moom ay xadisam léegi nag nit ki moom mooy xool ndax bu yàlla bi lay gëm. wala ndax yu sunnit yi lay gëm wala ndax yu chiit yi lay gëm ñun nag yàlla dogal na gis nañ li yàlla wax ci loola ñu gëm bu nga xam ne moom la yàlla jàngaleel boppam la yàlla wax na mooy ay xadiisam te la mu wax na moom mooy ay xadiisam moom la saxal na mooy waxu yonent bi loolu it ba tey ki yàlla nee na lii moom nee na moo nee na ay waxam nee na ay waxam mooy waxu yonent bi yeneen nit indi ay nettali teg ko na loolu mooy waxu yonent bi gëmloo ko ba ñu gëm loolu ba nit sax suy wax waxu yàlla nga xam ne ci biir waxu yàlla jooju yàlla moo saxal na loolu it mooy waxu yonent bi te waxul nettali yële ñuy wax dañ naan ah kii dafa mel ni kon daa beddi waxu yonent bi wax dafa mel ni dafa weddi waxu yonent bi aloos que yàlla li mu saxal na mooy waxu yonent bi mooy alquran léegi nag su boobaa nit ki naka lay def day gëm li yàlla wax na mooy waxu yonent bi wala day gëm nit ñi li ñu ñuy ñoom li ñu waxal seen bopp doon loolooy waxu yonent bi te yàlla moom di leen loolu lee ñi nit ñi di waxal seen bopp la mooy waxu yonent bi ñu tuddee ko xadis yàlla li mu waxal boppam na mooy waxu yonent bi moom mu tuddee ko xadis ba noppi laaj ñu ana ban xadis la ñuy gëm ginnaaw moom ay xadisam moom yàlla kon loolu su boobaa yaakaar na nit ku gëm yàlla moom choix wam du nekk loo xam ne su boobaa lu jafe lay nekk waaw léegi nag loolu noonu la demee léegi dama leen faral di wax na leen ñun fii nit ñu yaree ci diine dañu ñëw rek indi dara jox ñu ne lii mooy lii ñu ne waaw lii mooy lii su ko defee nit ñi yenn gëstu yi duñ ko ci def ñii tuddee ay oustaz ak sëriñ ñu ci bari loolu lañ leen di jàngal ñu jàng ko ñoom i toog di ko répété duñ def benn gëstu ngir jéem a xam lii lan mooy cosaan li ak lan mooy ma di xam ne lii ma ana lan moo ko jur ak ak it lii lan mooy cosaan li nga xam ne loolu noonu la demee soo ñëwee fi mu toll nii ci waa ahlu sunna wal jamaa dañoo am juróom benn téere yoo xam ne li ma koy waxee mooy seen livre canonique juróom benn téere yooyu ay hadis lañ ca def ci ñoom seeni xadis ñoom comme ni nga xamee ne soo demee ci chia yi am nañ seeni téere yoo xam ne ñoom seeni xaddis ñoo ca nekk léegi nag sunnit yi ñoom seeni xadis yi seen juróom benn téere yi ba ca gën a mag moom la ñuy wax téere bu Buxaari yi damay wax na nag téere bu Buxaari yi la nit ñi wax ci wàllu histoire képp ku ko gëstu te doon borom xel suñ la ko bëggee gëmloo doo ko nangu ndax ma ne leen benn nit koo xam ne su ngeen demee ci téere yi dañoo wax ne mom mu ngi juddu ginnaw bi gàddaay gi amé 194 ans ça veut dire que presque 200 ans ginnaw bi fi yonent bi bayiko ci la juddu mom ci la juddu mu ngi juddo Bukhara ñu ne Bukhara mu ngi nekk ci actuel Ouzbékistan ci côté Russie wala la moy fi jox wax Asie centrale ginnaaw gi mu bayiko ko ñew fi manam ci golfe arabique bi nee nañ di gëstu ñu di laaj yenentu bi ay mbiram ñu koy nettali muy bind di bind ba am six cent mille hadis yoo xam ne dañ ko ko nettali mu ne nettali yooyu biñ ko ko nettalee moom mi tànn di tànn di tànn ba daanaka quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi mu ne loolu wérul maanaam mu dese ko sept mille nga xam ne un pour cent la dese maanaam six cent mille ba sept mille six cent mille ba sept mille te léegi sept mille yooyu ñuy wax ne moom mooy moom mooy téereb yi nee nañ Buxaari yi moomu Buxaari yi moomu nga xam ne daanaka mu ngi juddu deux cent ans après yonent bi di dem di wër di laajte ñu koy netti deux cent ans ñun ñii rek suñu bàyyi wala suñu maam yu jege ñii nga xam ne matul téeméeri at suñu ci doon laaj dara pour nga am ci nettali bu wér sax day jafe rawatina nag deux cents ans te loolu it maanaam te loolu te loolu yemul foofu ndax fii Sénégal am na nit ñu fi nekk maanaam nit maanaam nit ñi di ma maanaam di leen gëm di def ci ñoom maanaam di leen def ay delluwaay ñoo xam ne bi ñu fi bàyyi koog matul téeméeri at te na lu nit ñi di nettali ci seen i mbir te wérul rawatina nag loo xam ne dañ naan la deux cents ans te kooku ñuy wax ne ginnaaw bi maa yéen bi ñu fi bàyyi ko ba daanaka mu mat deux cents ans ci la juddu. dem ba màgg jugee fa mu dëkkoon ñëw fii jàng fa arab ba dégg ko dem di gëstu ñu koy nettali ay nekk nettali mu koy bind ba mu am lu mat six cent mille xadis te ñu ne xadis yooyu benn bu ci ne balaa mu ko étudier dana jàpp julli ñaar ràkka ñaan doog a étudier six cent mille am na ñu sax ñu ci def ay xat ñu ci def ay ñu ci def ay études yu xaw a reetaanlu di di wax ci loolu di wax na loolu mënul nekk ci dund benn nit mais loolu moom leneen la léegi nag ñu ne nit kooku léegi nag ñu ne nit kooku moom dund na ba dee ba deewam googu am deux cent trente neuf ans la soog a gis téere bu ñuy askanale ku tudd Buxaari yi saa veut dire que Buxaari mu judd presque deux cents ans après yonent bi judd na dund màgg gëstu mu ne dem di laajte ñu koy bind ñu koy wax mii bind mu dajale dund ba dee ça veut dire que kon deux cents ans après yonent bi yu mat sëkk ba teg ginnaaw bi mu dundee ba dee deewam googu bi mu matee deux cent trente neuf ans ñu ne ci lañ soog a gis téere bu ñuy askanale ku tudd Buxaari yi ça veut dire que presque cinq cents ans ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko lañ njëkk a gis téere bu ñuy askanale ko tudd bu xaar yi téere boobu nag ay nettali ñoo ca nekk te sax loolu tam beneen mbir téere boobu ñuy wax ne dañ koy askanale ko tudd bu xaar yi ñu ne la amul benn manuscrit amul sax fragment de manuscrit maanaam téere boobu gisuñ original gisuñ koo xam ne daa wax ne daa bind jëlee ci original gisuñ it ab këyit bu ndaw wala ab dogitu këyit bu jugee ci original wala dogitu këyit boo xam ne dañoo wax ne daa jóge ci koo xam ne dafa xoolee ci original ba bind ko loolu di leneen léegi nag téere boobu it ba ca moom it ba tey ñu ne ci jamono bu njëkk ba amoon na ginnaaw loolu ginnaaw biñ gisee téere bi ñuy askanale ku tudd bu Buxaari ñu ne ginnaaw gi téere boobu amoon na lu mat treize versions yu wuute léegi loolu nag. Sénégal fii même yow mii sa laaj bii li nga wax loolu ngeen di tuddee waxu yonent bi te yàlla moom mu wax ne alquran mooy waxu yonent bi ci innahu la xawlu rasulin karim ci suuratu xàqa léegi nag si boobaa nit ki moom mooy xool ndax lii ku gëm yàlla ginnaaw bi dégg bi mu déggee aaya yii ma wax te yàlla yemut foofa soo demee ci suurat sept aaya aaya trois yàlla li mu wax ñu gëm mooy ittabihu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabihu min dunihi awliyaa xalilan ma tazakkarun topp leen lu ñu wàccee ci yéen mu tukkee ci seen borom te bu leen topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay muy suratu araf aya 3 muy surat 7 aya 3 te li ñu wàccee ci ñun mu jugee ci suñu borom ab téere la moom la wax ci soo demee ci aya 2 bi bi mu ne alif lam mim saad lu mu ca teg unzila ilayka téere boobu nag mu wàccee mu jëm ci yonent bi moom la ñu yonent bi jottali loolu la yàlla wàccee mu jëm ci ñun yàlla mu ne nag lañuy topp li mu wàccee mu jëm ci ñun tukkee ca moom te bu ñu topp lu dul loolu di ko def wéeruwaay kon nag koo xam ne dafa gëm yàlla yàlla moom lim koy wax wax na ko ko lam koy gëmloo ci ay wax wax na ko ko lam koy toppaloo ci ay wax wax na ko ko kon nag ñun yàlla dogal na loolu la ñu dem ba gisal ko suñu bopp ci téere bi yàlla xam na kon lañ ñu jàngaloon ak li yàlla jàngale du benn ginnaaw gi ñu dem ba ràññee ne sax ndekete lañ fi indi woon njàngaleem ahlu sunna wal jamaa la ab kuréel la bi ñuy wax sunnisme comme ni nga xamee ne am na yeneen kuréel yu tudd chiisme te yàlla ci boppam soo demee ci alquran mën nga koo vérifier mën nga koo vérifier sa bopp soo demee suratu ruum muy surat 30 aya 31 32 yàlla moo ciy jàngale ne ñi xaaj seen diina ay bokkaalekat lañu man mii di tax ma génn ci kuréel yi nga xam ne ci laa bokkoon muy tariixa te yàlla dogal na ma nekkoon ndaw nekkoon ca yàlla dogal ma amoon ca mbooloo te ay bi mu demee ba mu leer ci man ci laa libéré mbooloo ma ca laa dëñ ci yooyu nga xam ne ay kuréel la li ñuy wax tariixa ca booba laa ca jug boobu ba léegi nag ci laa jug ci loolu complètement kon nag dëgg-dëgg mbir yi moom yàlla dogal na lu mën a xew nii la demee te ëllëg it yàlla duñu laaj benn téere burul ab téeréem moom loolu tamit soo demee ci surat 43 verset 43 44 yow yaa koy fekkal sa bopp ëllëg yàlla du ñu laaj benn wax budul waxam du ñu laaj benn téere budul téeréem te yonent buy loolu ko yàlla wax yu ci loolu képp la doon dox kon nag wax dëgg yàlla macha allah mbir yi noonu rek la demee kontaan nañ trop alhamdulillah jërë ngeen jëf wasalaamualeykum